كما بك اعتدت عتاقا بك دوينا ما له نساقا صلى عليك الأكرم الخلاق li ñu bëgg tënk ci gàttal rek ngeen jéggal ma li ñuy wax dañ koy wax ci turu sëriñ Abou Mbacke mu di ko wax ci turu sëriñ Bachirou Mbacke miy jëwriñu kër gi ci ndigalul sëriñ Abdoul Fattah mi yor kàddu kër gi xam ne lii ak commission bi yor ak bi yor liggéey màggal gi ñoo ko tënk ni wax naa ko wax seen tur mu di ñetti ñetti mbir lay aju rek ci gàttal gannaaw bu ñu nuyoo jàdd yolle kàddu cant fàttali li tax ñu daje fi tey wax wax sëriñ bi ni muy téewoon liggéey ci gàttal mënoon naa gudd lool waaye jataay bee gàtt cant gi mi ngi sëriñ baa ngi koy jiital jëmale ko ci Muntaxa Mbàkke rab yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko wax nañ ko sànq yàlla na fi yàggal te wér ndax taxawaay mu rafet ci diine ji ci bokk gi ci réew mi rawatina ci kër sëñ Fallou damay wax ne sëriñ Muntaxa li wolof di wax maa ci raw maa ci raw gàtt xel la waaye ku jaxasoo moom ku ne da ngay def fi mu nekk tegu fa kenn waaye kenn sikki sàkkawul te sëriñ bi xam ne teg na sëñ te paas bu rëy boo xam ne dañu alhamdulilah rabbil alamin yàlla yàgg lool rek di sant kilifa yi fi teew yëpp kilifay diine yi waa kër sëñ Touba yi waa kër kër kilifay diine yi di nuyu ministre bi ministre Mokhtar Ba ak ministre yi mu àndal ak délégation bi mu àndal toogal fi président de la république ak ambassadeur yi fi toog ak kilifay diine yi fi toog yëpp ak ñun taalibe yëpp suñu baa ngi ñu nuyu ñëpp li ñu sant leen gërëm ci lépp li taxawaayu rafet yi ngeen taxaw ci bis bu tedd bi xam ngeen ko gis na ko yëg na ko kàddu cantuk sëriñ bi dana dana ñëw di sant presse bi presse bépp rek presse presse privée bi ak presse publique presse d'état bi ak presse privée bi moo xam presse écrite bi la wala presse télévisuelle wala presse écrite ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku teew ci bis bi daa nga jàpp bi sëñ bi gis na ko yëg na ko ma ngi lay sant di la gërëm te sant mënta weesu sant te waxtu bi xat na kon ñette ñaareelu point bi mooy day fàttali ñu fi tax ñëw rek juñu nañ ko sànq te ñëpp xam nañ ko mu li barkeelu feeñ gu Cheikh Mamadou Fadel feeñoon ci guddi gi te xam ngeen ne guddi gi lu bari xew ci ci tënk ci la sëñ Fallou feeñ ci lañ gàdday ràññaaye woon yonante bi sallallahu wa sallam mu jógee Makka dem Baytul Maqdis jóge fa dem a kawe ci la jullit juróom wàcc ci la alxuraan wàcc ak yu bare bare yu yoo xam ne duñ ci insisté dégg ko ba tey waaye ci la Cheikh Modou taxaw mi tax ñu toog fii nag di di ko fàttaliku Isra wala Mi'raj boobu nga xam ne yonante bi mësta am teraanga bu ne wax nañ ko fi sànq jàng nañ aay wi ko fi alxuraan ma ciy insisté sëriñ Fallou boobu nga xam ne liggéey du ko ñoroon lool bokk na ci li gën a rëy ci ab liggéeyam tabax tabax gu rëy yi nekk nekk suñu kanam kon damay daal jóge foofu dem ñetteelu point bi ci gàttal rek mooy liggéey nga xam ne moo doon point central wax ji ni ko sëñ fal fonke woon sëñ Fallou dundam gépp liggéey la liggéey na liggéey xeetu liggéeyoon yu bari yu ne na jul na ko jullit war a defee ndax jul liggéey dafa bokk ci élément yi nga xam ne élément constitutif la ci yoonu murit élément yi nga xam ne ci moyens yi murit war a jëfandikoo pour mën a mën a jaamu yàlla ndax li ñu fi yéen ñu fi rek mën a jaamu yàlla innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jàng ngeen ko yéen yëpp Sëriñ Tuubaa wax ne daan ko tuddi talabul xalaal waaw kasbul xalaal mu ne talabul xalaal farata la jullit bu nekk loolu amu ci lu ma ci sàkka mu ne xam-xam kese du jëriñ jaamu yàlla kese du jëriñ fekk defoo ko tey lekk lu lu dagan kon nag da ngeen di sàkk lu dagan waxtu wu ne bu ngeen bëggee ak njub bu ngeen bëggee seen seen seen topp suñu borom nangu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 liggéey na liggéey yu baree bari façon liggéey yu bari yoo xam ne am na ci loo xam ne dama ko sañee wax waaye am na ci lu ñu la junj moo tax ma ne fii sëñ sëñ bi ñu taw fii yaraate na jàngale na tàggat na ay nit jubbanti na ay nit tabax na ay jàkk tabax na ay jumaa aj na dimbale na aj aj aj ay nit ñu aji bay na sos na ay dëkk def na alal jul jeex ci yoonu yàlla dimbale na ay njaboot ñaanal nañu soxla seen ajo fajo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 nee na bu sëñ mosaan dugg ci oto bi bay dem fet bay dem ndindi da koy déey wax ko ci bokk ci ñi mu njëkk ñi njëkk invité ci diine ak jamono ba mu koy door bu ñuy bu ñu koy delloo hommage sas wax ne naa ko jottali dañ cay bég sant bu baax ñaan yàlla xare ko àjjana gën a kaw sëriñ bi joxe ñaan ñeneen ñaar ñi fi bàyyi bu yàggul tudd nañ leen muy sëriñ Baara Mbacke mu soxna Fatja ak sëriñ Cheikh moom Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dara bi yëg ñu bari démb kon ñu ngi koy ñu leen di fàttali ko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 al ixwa nurahibu bikum jamian wa xaasatan hum min atariqa alqadiriya wa adunnu annahum zaaru tuuba qabla hada li anni raaytu muqaabalatahum maa cheikh Mouhamed El Amin Baara wa raaytuhum maa ibn axi cheikhuna Mbakke idan marhaban bikum fi daarikum wa fi manzilikum wa naqulu lakum kama qaala shaair yaa dayfanaa law zurtanaa lawajadtanaa nahnu duyuufa wa anta rabbul manzili idan marhaban bikum fi baladikum bayna ashqaa'ikum wa ahbaabikum fi haadha fi tuuba almahruusa allatii hiya baladul muslimiin balligh jami wa balligh muslimin aynama jaa'u wartahadu wa hajju barakallahu fikum shukran jazilan jërëjëf بك كما بك اعتدى عتاقا بك دوينا ما له نساق صلى عليك الأكرم الخلاق